وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واسيلا الله أكبر كبيرا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 maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqim sirata alladhina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي والذي أخرج المرعي فجعله غثاء نحوي سنقرئك فلا تنسي إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفي ونيسرك لليسر فالذكر إن نفعت الذكر فيذكر من يخشى ويتجنبها الأسقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تنسون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى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 allahu akbar allahu akbar asalaamualeykum. asalaamualeykum. jiduhu. wasalaatu wasalaamu ala sayyidi alxaadirin walbaad. wa ala aalihi wa saxbihi al awxaad.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 al agniya hal yashkuruun wa xuquuqahu yufawiduun kama btalal fuqaraa hal yasbiruun wa fadlahu yarjuun man akramahu fa yadilluhu wa man ahnaahu wa man ahannaahu fa li adlihi ashhadu an laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lah ashhadu an laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lah alfaalu lima yurid wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu alsaadiqu alwacdi alwacid allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa ahli baytihi min qaribin wa bacidin allahuma farrij humuma almuminin wa axsin xalaas almasjunin watub watub ala alcaasiyati muznibina wa wasic ala almuqillina yaa arxama arraximina yaa arxama arraximin yaa arxama arraximin wa caamilna bi fadlika wala tucaamilna bi cadlika wa aati jamcana jamcatana wa jamiica almuslimin walmuslimat alaxyaai minhum walamwaat innaka mujibu daawaat walmuqiilu lhafawaat bismillahi irrahmani irrahim wasalaatu wasalaamu ala sayidina muhammadin wa alihi wa saxbihi wa sallama tasliman alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayidina muhammadin alxaatimi nabiin xaatimi nabiina wa imaami almursalin sallallahu alayhi wa ala alihi wa asxaabihi wa xulafaay awwalu maa yajibu ala almukallafi tasxiixu imaanihi summa macrifatu maa yuslixu bihi fardu caynihi ka axkaami alsalaati waltahaarati walsiyaami wa yajibu calayhi an yuxaafida ala xuduudi illahi wa yaqifa cinda amrihi wa nahyihi wa yatuuba allah wa yatuuba ila allah subxaanahu qabla an yasxata calayhi wa shuruutu tawbati an nadamu ala ma faata wa niyatu ala an ala alaa yacuuda ila zanbin fi ma baqiya min cumrihi wa an yatruka almacsiyata fi saacatiha in kaana mutalabbisan biha wala yaxillu lahu an yuaxira tawbata wala yaqulu xata yahdiyani allahu fa innahu min calaamati alshaqaa'i wal xizlaani wa tamsil basira wa tamsil basirati wa yuhibbu wa yajibu alayhi xifzu lisaanihi min alfaxshaai walkalaami alqabiix wa aymaani altalaaqi wa intihaari almuslim wa ihaanatihi wa sabbihi wa taxwiifihi fi gayri xaqin sharciyin wa yajibu alayhi xifzu basarihi min nazar min min al nazari ila al xaraami wala yaxilu lahu an yanzura ila muslimin bi nazratin tuzihi illa an yakuna fasiqan fa yajibu hijraanuhu wa yajibu alayhi xifzu jamii jawaarixihi mastataa wa an yajibu wa an yuhibba lillahi wa an yugdiba wa an yubgida lillahi wa an yubgida lahu wa yarda lahu wa yaxdaba lahu wa yaamuru bilmaarufi wa yanha an ilmunkar wa wa yaxramu alayhi alkadiba walxiiba wannamima walkibru walujbu walriyaau walsumatu walxasadu walbuxdu walruyatu alfadli ala alxayri walhamzu wallamzu walcabasu walsuxriyatu walzina wa nazaru wa nazaru ila ila ajnabiya ila ajnabiya wa talazzazu bi kalaamiha wa aklu amwaali nnaasi bi gayri tiibi nafsin wa aklu bi shafaai bi shafaati aw bi diini wa taxiiru salaati an awqaatiha wala yaxilu lahu subxatu faasiqin wala wala mujaalasatuhu li gayri daruratin wala yatlubu wala yatlubu rida almaxluqina bi suxti alxaaliqi xaaliqi qaala allahu subhanahu wallahu wa rasuluhu axaqu an yurduuhu in kaanu muminin wa qaala alayhi salaatu wassalaam laa taacata li maxluqin fi macsiyati xaaliqin wala yaxilu lahu an yafcala ficlan xata yaclama xukma allahi fii wa yasal al ulama wa yaqtadi bi muttabiina li sunnati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam alladina yadulluuna ala taati illahi wa yuxadiruuna min min itibaaci shaytaan wala yarda li nafsihi maa radiya maa radiyahu almuflisuuna alladina daat acmaaruhum fi gayri taati illahi taala fa yaa xasratahum wa yaa tuula bukaa'ihim yowma alqiyaamati nasalu llaha subhaanahu an yuwaffiqana littibaa'i sunnati sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyina wa shafiicina wa sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokki jullit yi ñu sant yàlla di ko màggal ci kennam gi mu doon mooy teerukaay bi waxuñu ne am nañu yàlla baaxal bañ baax kenn weddiwu suñ sëriñ sii ñu yàlla boole ñépp a baax dalee ca maam Cheikh Al Hadj Omar wàcc ci Cheikh Al Hadj wàcc ci maam Ahmad Bamba wàcc ci Seydina Limaamu Laay maam Abdoulaye Niass ca Kaolack sëriñ Ndaak Amari Ndaak Seck ca Ceneba góor gi Ahmad Baro njëgéne alaaji Ahmad Baro Cerno Mamad Saydu Ba Medina Gunaas ak mboolem kiri diine yi ci Sénégal yépp yàlla baaxal na lañ bañ baax waaye du ñu yàlla nag fokk ñu xam ne du ñu yàlla te réew mi léegi lu neex waaye rek woote lu neex waaye rek woote te lu waay woote ñu topp la ci moo tax ma tànn téere bii nga xam ne tuuti na lool waaye bari na tiyaaba lool tuuti na lool waaye ëmb na ay njëriñ yoo xam ne buñ ko toppee ñun ñëpp dana tiye ci suñu loxo ba dugal ñu àjjana te ñun loolu rek lañu soxla àddina bi jeex na ba noppi dund mosul yàgg rawati léegi ana yonent yi ana ñu baax ñi fi nekkoon ñi ma fi tudd ñi ñëpp ana ñu ana borom alal ya ana qaaruna ana firawna ana haamaana ana ana ana ana ñëpp a ci biir suuf ñun ñii fi tooge ni nii looloo ñuy xaar ña dem dootuñ ñëw mukk ñun ñi fi toog ñoo leen di fekk kon na rafet na diggante yi rafet na xol yi rafet na xol yi sell ñu ànd nañu nekk benn ñun ay jullit lañ nañu nañu niru ay jullit ñun ay jullit lañ ñu niru ay jullit te bu ci kenn xeeb sa kenn ku nekk ci ñun na jàpp ne lii defar réew mi ci loxoom la nekk waaye kenn ku nekk ci ñun it na jàpp ne lii yàq réew mi ci loxoom la nekk bu ci mag xeeb boppam bu ci gone xeeb boppam ndax gone amut mag amut ñi fi fiy tudd ci diine yépp buñ la waxee at yiñ am bañ di leen tudd ci diine ñun ñi ñëpp war nañu laxasuwaay dalee ci yonent bi sallallahu alayhi bi muy am fukki at ak juróom la yor kër baay bi muy am fukki at ak la yor kër baay <coughs> luñ ciy dégg <coughs> excuse amul damay jàng d'accord na jàngal waaye bul yàq yemal ci jàng waaye jàng it loo ca mën boole boole ko ci loo mën a boole ci jàng bi boole ko ci te wallahi lu dul jàng jàng ko gën te réew maa ngi foyee xam-xam lu dul jàng jàng ko gën ñi toll ci jàng nañu jàng réew xam-xam a ko yor ak njub su fa xam-xam jógee njub jóg fa réew ma alfa la kenn mënul njub mënoo jub te amoo xam-xam ndax balaa ngaa jub da ngay xam fi ngay jaar bi may ñëw fii su ma dikkee ñëw doon jiitu topp si ma xëy na dinaa yegg si waaye ma topp ko xëy na dina dinaa yegg si waaye dana yéex moom mi xam fi mu jëm ma topp ci kawam fekk maa ngi topp ci kawam du ma réer waaye moom bu réeree rek ma réer loolu mooy ñi ñu jiite ci diine ñu am ful la ñu nag feeg ñu ngi leen gis ñu nekk ci yoonu njub nañ ànd ak ñoom waaye bu ñu wàccee yoon wa nañ am fulla ju day ni ne ne leen ñu ngi leen di xaar ci kaw yoon wi bu ngeen ñëwaatee rek fekk ñu ci ñu continue yonent bi sallallahu alayhi wa noonu la doon doxalee saxaabaam yi noonu lañ doon doxale nañu ca orma réew mi bu ñu amee li gën te gënuñu nañ seetaat suñ ko ñun ñoo am li gën te gënuñu kenn nañ seetaat suñ bopp ñoo am diina lislaam inna diina inda allahi al islaam wa man yabtagi gayra al islaami diinan falan yuqbala la wa huwa fi laaxirati min al xaasiriin yàlla ne diine ji ma tànn teg ko ci kaw diine yépp reconnaître ko beneen diine bu fi waay sos reconnaître ma ko bu la neexee na nga sos ko yaa xam waaye yàlla nee na benn diine laa reconnaître mooy islaam nee na ku jàpp lu dul islam nag jàpp nga ci neen te boo ëllëgee duma la fay dara te kuñ fayul dara safara nga ji loolu faw ñu ñemee nag waxuñu nag ne ku ne ci beneen diine tàppaas ko ku ne ci beneen diine demal nga tooñ ko islam santaanewul tàppaas santaanewul tooñ moo tax terrorisme bii xew ñu naan jullit ñu du jullit jullit du takk ay bomb di rey moroom yi jullitam waxuma laat sax ku dul jullit sax waroo ko rey waxuma la sa moroom yi jullit loolu du diine takk bomb dugg ci biir jàkk du diine takk bomb dem ci marché du diine takk bomb dem ci ay hôpitaux du diine yow kañ boo amee fit defal ni Cheikh Al defoon gàddul jaasi dem di xeex fa na aw yuqtaluun ñu niru ay jullit ñëwuma fi pour kenn dama fi ñëw ngir dënk leen li may dënk sama bopp la yonent yàlla Suayb waxoon ne in uridu illa al islaaha mastataatu wa ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib la mu waxoon ne la leen di wax daal jubluwuma ci lu dul digal leen yiw te jiitu ca tere leen safaan te njëkk ca ca bàyyi ga ñun ñépp nag nañ maase ci loolu ku ci am njaboot yar ko jàngal ko diine defal ci moom njub defal ci moom kersa defal ci moom yar defal ci moom teggin képp ku dajale yii sa àddina dina neex waaye ku dajale leneen lu dul lii bés dana ñëw nga lëjal sa bopp lëjal say bopp ñun ñépp nañ bàyyi xel ci suñ njaboot rawati njaboot bu ndaw ji kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an sa salaay salaam nee na kenn ku ne ci yéen ab sàmm la sàmm bu ne danañ ko laaj lam doon sàmm ëllëg yaa ayyuha alladina amanu alquran addu qu anfusakum wa ahlikum naara suñ boroom nee na yéen ñi ma gëm te bokk ci dayratul iman maa ngi leen di woo fegal leen seen bopp ak seen njaboot lakku safara ëllëg ku ci am njaboot boy boyal ko bàyyi ko ci lu ko neex ne ma ko dara li Cheikhul Hadji Abdoul Aziz daan wax radiyallahu anhu nee boo ëllëgee di nga ne wàtt ca safara te kenn du la fa a dara njaboot dañ koy orienté njaboot dañ koy jubbanti doo seet li ko neex rek nga bàyyi ko ci fa tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiin ci tabaski lañ nekk waxtaan wi du gudd ndax yi ci aju bokk la korite korite waxtaan wa mën naa gudd waaye tabaski dañ sopp waxtaan wi ñu gàttal ko ndax ya aju ci bés bi rendeek fees ak ñoom kumte kumte yi yooyu lañ gën a ittewoo ci julleek waxtaan waaye waxtaan sax ñoom ñu ngay miir ndax bi ñu la bëgg a déglu fa tabaarakallaahu ndax yàkkamti yooyu le waaye yooyu li muy neex neex nag yàllaa ko dàq nag waaw ku mos yàlla piir di nga xam ne yàpp wii la yàlla wax ne lan yanaala llaahu luxumuha wala dimaauha walakin yanaaluhu taqwa minkum yàlla nee na xar mi lu muy ponkal ponkal man yàlla soxlawu ma deret soxla mu ne ragal yàlla gi ci yéen ma sant leen yéen jëf rek loolu doy na ma man yàlla ma ne yàlla ni mu baaxee yàlla buur bu baax la nit ñi yéeni wante yiw rek yàlla lim am ñun ñëpp xaj nañ ci bu kenn yéene sa morom safaan bu kenn yéene sa morom lu du yiw yàlla li mu am ñëpp xaj nañ ci ku xool ne bi fii ñëw indi woo fi sa bopp booy dem doo yóbbu sa bopp li la fi indi moo lay yóbbu ngaa teey ki la fi indi fi mu jaar ak yow billaahi boo mu teg ci sa loxo li nga yàlla wallahu axrajakum min butuuni ummahaatikum laa taalamuuna shay'an wa jaala lakum as-sam'a wal absaara wal af'idata laallakum tashkuruun xoolal biiru yaay ni mu xati yàlla def fa doom ci ay weer tàmbaleeg moom ci ndox wa xalaqa min al-maa'i kulla shay'in hayyin afalaa tubsiruun yàlla nee maa bind lépp ci ndox xanaa du ngeen am xel di gis benn toq man nit ñu yàlla jëlee ko ci góor ne min bayni sulbi wa taraa'iq innahu ala raj'ihi la qaadirun min bay ni sul bi góor fii la ma niyoom di topp topp départ jigéen ci càqi baat yàlla ne na diggante càqi baat ak ndigg fala feccee doomu aadama ci lekk bu mu lekk ma filtre tey booy xool nit amul fooy dagg ci moom mën yu génn amul mën yu ci deret la nekk moo tax ngay gis nit naan diw sama deret la maa ko jur lu tax waxaw diw sama mën yu bàyyi ko def ci toll rek comme ñëw na ci julleekaay bi rek sant yàlla bàyyi ko mu fo yow ba nga ciy toll xamoo nu man mii ba ma ciy toll xaw ma nu ma nu ma doon def yaa ko indi bàyyi ko rek bés yi feet la bés yu mel nii yonent bi nee bàyyi leen xale yi ñu feetu te indi leen jigéen ñi indi leen xale yi indi leen ñépp ci julleekaay bi su ngeen di dem ngeen jaar ci mel ni mbedd su ngeen di wëññeekoo ngeen jël beneen mbedd bañ xam ne yéen jullit ñi bari ngeen ndax kenn bañ leen a yàpp loolu dañ ko sob beneen yoon it na ngeen ut yet yet ci la bokk sunna la waaw dama koo gisul rek moo tax du farata nag waaye sunna bu dëgër la na ngeen yet bu baax denc ko juma ak julli ñaari iid yi korite ak tabaski dañ ci sopp imam ba na yore yet royee ko ci yonent bi salaay sallam ñu bi ma ñëwee it boo gisee ma ne bismillah boo ñëwee wax xaj amul wax dañuy ñëw rek julli buñ jullee ba noppi it amul wax xutba rek suñ paree nag dooral nuyoo jàmm sant islaam dafa am ay règle nañ ko respecte rek topp règle yooyu moo tax ma ne na ngi beneen yoon ngeen ut yet korité bii di ñëw ngeen ut yet bàyyi ko fi feeg maa ngi koy mën maay ñëw di leen jiite incha allah su yeboo sax ñetti nit néew fi man xàmmeewuma ñetti nit ak ñaari nit ndax li ma yàlla jox xam naa ko xàmmeewuma ñetti nit ak ñaari nit ndax bu dee mbooloo rek yàlla dënk di ma ko ba mu doy lu may lu may soxla ah wa anzir asiratakal aqrabiina la yàlla waxoon nga dem yonent bi ci waar ñetti nit la tàmbalee ay boo nee mbooloo laay xaar boo dee ci armeel yële mbooloo du la ko fekk buñ la suulee ba dem di xam naa yaa mbooloo fay nekk wala yow ay yëfi caaxaan la rek nañ bàyyee bëgg daraja bu ëpp bi ñun ñëpp ay jaam lañ jaam nag ñaar rek ko war jaamu sangam ak nekk jaam ma ne boo gisee fi nit départ warul dërëy nit ku war a suufee la doon nit moo tax yonent bi ne man tawaadaa lillahi rafaahu llah sallallahu alayhi wa nee na ku wàcc ngir sama jëmm ma yëkkati la yàlla yëkkati la ngir jëmm te yàlla na mu toll kenn xamul moo tax suñu mag ñi raw ñu waaw wàccee seen bopp suuf ñun nag te yonent bi ñu roy lu ne daj na lu ne def nañ ko ci kaw suuf mu muñ mag ñi fi jaar ñépp ba ci Cheikh Ahmad Bamba xool leen lim daj ci digganteem ak tubaab bi te bu bu bëggoon mën naa mucc xoolal Cheikh Al Hadj mag ñépp koo ci jël rek tubaab bi jaar nag moom foo xam ne yow bu fa jaaroon nag yow nga ne ko jébbalu na su meeku topp ko kon nag ñooñu mag ñooñu orma lañ leen yoreel waaye buñ leen di ŋàññi buñ leen di xas ne ñu ormal suñu mag ñi la sëriñ Cheikh Ahmad Tidiane si waxoon ne sëriñ Muniru Saar moo ko waxoon makka ñoo ñu gën mag ñu njëkk waaye ñoo leen gën mag ñu mujj na ndax yonent bi ak saxaaba bi kenn mënu leen géej gën waaye Alaaji Maalik ak Sëñ Tuubaa kenn mënu leen gën kon nag ku am li gën da war a gën lu waay di wuyoo da koy niru dinaa koy faral di wax mbay yaa ñu doy mbay yaa ñu doy Seydi Aboubacar Bakar ak Daraman yaa ñu doy dëgg la mbay fexe na ba doy ñépp waaye yow mi taalibe mbay est-ce que bu mbay woon dana la doy ndax sa jikko ju bon est-ce que boo dajee mbay yow mal xiyaam dana la doy lool ndax sa jikko ju ñaaw est-ce que boo dajeeg Serigne Touba yowmal xiyaam dana la bëgg a taalibe woo ndax sa jikko yu bon soo amee nit ku baax danga koy roy ca lam lam ne woon nga nekkati tànk buñ koy topp danga koy teg fu leer waaye bëgg suñ sëriñ si buñ waxee nga daanu yuuxu fële ñu ci suuf te dara yàlla saful boo léegi ak sëriñ bi bu du ngeen jotee tus sëriñ bi am na fu mu yem ak yow de Seydul Xaaji Malick maa nangu ci làmmiñu Cheikhul Xaaji Abdoul Aziz bu ne dañ julli ca Ndar ba sëlma mu ne yéen waa Ndar yéen lay wax dem leen kër gouverneur may naa leen mu ne ñëpp toog kenn ñemewatu jóg nee mu waxaat ko ñaari yoon kenn jógut mu waxaat ko ñetti yoon kenn jógut mu ne ah day yàlla suturaal la ko wàcc naa wàccoo naa ak yéen ñooñu ci naaj wi nañ ñëw ci kere naaj baaxul fii am na place yonent bi sala eh, Seydi Hadj Malick ne leen de wàccoo naat yéen ñu ne ko lu tax mu ne Malick dëkk ak yéen fii ci Sénégal gouverneur dëkk ca far France jógee France ñëw fii am fi cër bu fi Malick amul ma may leen këram ñemewu leen koo dem jël wax kay fa naka la leen Malick di diggee àjjana joo xam ne feeram demu fa simaam demu fa dem leen jaamu ci yàlla te bàyyi pom ku fi diggee àjjana fexeel ba wax ki dee fu lay xaar yaa ma dig àjjana fexeel ba wax ma bu ma la jiitoo fu ma lay xaar wala yow boo ma jiitoo foo may xaar pour ñu tasee ko ku ne xaar ma Dakar kañ xam nga fa ñuy xaarante ci Dakar kone ne nañ tasee buntu jam ñaajo xam nga fañ ñuy tasee ci buntu jam ñaajo kon ku la ne maa la dig àjjana wax na la ba war na laa wax fan ci àjjana la la koy xaar wala moom fa la lay xaar nañ bàyyi caaxaanante jàmm yàlla règle yii du changé ku bëgg àddina liggéey ku bëgg yàlla jàmm du changé de mag ñi fi newoon de liñ am ñoom ñoo ko ñaq Sénégal nag léegi li Serigne Baye Abdoul Aziz di wax mu ne nit ñi boo waxee ñu ne xaalis duñ ko liggéey dañ koy lijjanti mu ne fu mu liggéey koo gis bu xëyee rek mu nga gàddu sax di lijjanti moo tax day dem ba léj moom ñu di ko lijjanti ne ñu nangoo liggéey réew ñaar a ko yor jàng ak liggéey jàng ak liggéey waaye tappale taxawaal wagajaane yorul réew sampul kër te senegal nag ngeen baal màq gëmuñu liggéey gëmuñu jàng liñ gëm moom kenn xamut lan yàlla nañu yàlla dolli sutura yàlla nañu yàlla dolli sutura yàlla dolli sutura su ko defee pour jeexal li ma jëloon rek lay yeggali xoolal fi yàlla jaarat ni benn toqantu man ni yu bu tuuti yéen jigéen ñi xaw ma ko war a xam yàlla waaye yéen a ci jiitu ndax fi yàlla di placé doom ci jigéen kenn mënu ko ko yàlla bàyyi ñépp xool jigéen ba seppali ko ne ko yaay sama atelier ci yow fa laay xëy di gont ki ma gën a bëgg ci sa biir bii laa koy defaree te maay ñëwal sama bopp di ko liggéey duma yable yàlla buy fabriqué nit du yebal malaaka du yebal kenn ndax day bañ ko xam secret mooy ñëwal bopp na muy ñëwee nag ci loxo muy biiru jigéen moo ko xam waaye nee na du ma yebal kenn maa ñëwal sama bopp nee na su ma ñëwee ñeent fukki fan yu njëkk yi ma jàpp ma niyu di ko wëlbati moom yàlla di ko wëlbati di ko wëlbati ba mu nekk lumb lumb dara foofu nag lañ wax ne boo avorteelee sa bopp te tey ko am nga bàkkaaru ko rey nit ndax foofu la ko yàlla di soli rox foofu day commencé dund day am kër kër bi di battre loolu échographie léegi daf koy wane da ngay yëg ni ko kër bi di dóore te dara sosoobu xam ne yàlla rekk mën yàlla rekk mën ñeent fukki fan mu jël suux woowu lumb boobu def ko suux suuxu yàpp bàyyiwaat ko ñeent fukki fan tucc tuccal ko taawi ko nag commencé dessiner day njool wala day gàtt day ñuul wala day xees bakkan bi day palaa wala day def coll bët yi day xóot wala day génn nopp yi day rëy wala day tuuti day day day day laago wala day jub danaa am wërsëg wala doomu wërsëg yëpp yàlla tracé ko rëdd dooral nag fabriqué nit ni mu ko bëggee nee na ma tàll la bàyyi ko ñeent fukki fanati su ma euh, euh, euh, door door koo def yax squelette te xoolal soxna si ko ëmb yax yi du ko jàpp yax yi foofu comme élastique su sëggee yax yi day lem su siggee yax yi tàlli yàlla ne ma bàyyi ko ñeent fukki fan su ma kasaw na al izaama lahman man alquran lay wax de nee na ma jël yàpp yax yooyu nag muur ko ak yàpp ñeent fukki fan door a indi der bii nag ëw moom la laaj Abdou Aziz daan wax ne yàllaay bu mag bi ndax bi ñuy ëwal suñ der yi kenn gisul fu mu ko ñëw te uude bi bu lay ëwal rek léegi nga xam fi pusa yi jaar médecin bi bu la opéré ba noppi nga xam fi pusa yi jaar waaye yàlla bi muy ëw der bi kenn xamul fu jaarale pusa bi te suñ der yaa ngi nii te der ay deri der la moo waral boo lakkee mu wér beneen ñëw lii yëpp dama bëgg ñu xam kàttanal yàlla parce que nit ki fekk xamut yàlla li mu bëgg du ko am boo xamee yàlla nag lu mu mën a ci doon rek di nga ko jox cër ndax dangay xam ne lool yàlla mu nga ca biir lool ci ngay mën a joxe doomu aadama respect soo xamul yàlla doo respecté kenn mala yi sax doo leen respecté te mala yi boo xesee xam yàlla sax da war a respecté mala yi waxuma la ak nit yàlla di dem ak ñun commencé nag di ci bët wa jaala sama nopp la njëkk a def nit digg lay njëkk def ci biiru yaay wal absaara mu ne ma teg ci bët wal af idata mu ne ma teg ci xol la'allakum tashkurun ndax ngeen mën maa sant mu ne ba ma leen di xotti ba ku yëg fu ma la gaañ kenn yëg ma bënn paxi bakkan gaañu ma la fen bënn paxi nopp gaañu ma la fen bàyyi la ci sa biir yaay ngay frotté di féey am na liquide bu nekk ci biir bi buy bu nit di wasin rek lay génne te liquide boobu mooy formé waat ci la xale bi di saw liquide bi formé ci lay naan liquide bi formé wu te du ko def dara ci ci lay fay comme ku nekk ci kii léeg mu demee côté gauche léeg-léeg côté droite léeg-léeg mu juutu léeg mu taxaw ba mu waree génn nag jiital bopp bi yàlla ne suma sabila yasarahu fa mu bi génn mu ne maa fa jaar de xaju fa maa ko jàppandal waaye xaju fa suma topp sabila yoon wam jaar bi génn yasa yasarahu maa koy maa ko jàppandal waaye xaju fa mu ne waaye tuuti nag suma amaatawu bu fiy cëppi cëppi tuuti rek ma rey ko summa amaatahum mu ne bu ma ko reyee nag fa aqbarahu suul leen ko loolu rek ngeen ci man la ca des bàyyiwaat leen ko man xam nga ki la fekk ci sa biir yaay teral la waaye waaye boo duggee bàmmeel mu fekkaat la fa teral la ndax biiru yaay a gën a xat bàmmeel seetlu wuñ ko bàmmeel yaatu na biiru yaay ko gën a xat te fala la yàlla fekkoon nga am climatiseur bu tàngee jir sa yaay nekk ci naaj wi di waŋ-waŋi yow ngaa nga ci biir biir tàngaay ci kaw tàngaay te am climatiseur ci biir biir a gën a tàng ci li yàlla bind yéen ñépp xam ngeen léegi jarul sax nit di explication yu sori ndax fii àddina toll ci wàllu développement ci wàllu xarale yu bees yi yàlla di wëlbati nit xoolal ci biir ni mu tàngee mu di dafa wëlbati moo tax liir bu génnee rek yuuxu parce que loxo yi koy accueillir la dul xam dafa naan yama yama doon wëlbati ca biir yooyu gën a sedd yi ndax yii dafa diis yàlla ne ko xamagoo ci dara sax xalaxal insaan fii kabadin des nga sa torox tànge nga naan la demal di nga jàngi ñu wulli la ca daara ja tàpp tàppal la ca école ba nga xëy di sàmm te maa la doon sang ci sa biir yaay nga bëgg a lekk foog ko nga dang sex sax xamit wanaasu te maa la ko daan defal ci sa biir yaay dina gute num la neexee nga nekk buur tey génnal ci biti baadoo la ngaa ca ba ba ngay fekk si waat ci bàmmeel nag ma teral la su fekkee la ma bëggoon def nga ko waay waay nañ jaamu yàlla nañ bëgg yàlla nañ topp yàlla waaye nañ ormaan suñu mag ñi ñu yàlla boole ba nag ñu ormalante ci suñ biir téere bii nag incha allahu saa yu ma fi ñëwee ci lay fas di jël par tuuti tuuti ba ba ma leen di bàyyee koo xam ne nag mooy wéy ak yéen ndax man dëkkuma fi waaye sharia may na ma ma ñëw jiite fi ji damay bañ ñu yóbbu ma nee naa senegal ku ne mën naa wax mu jur jàmm ba mu des Chérif Ibrahima Aïdara Tidiane man su ma waxee moom ñu amplifié ko waaye bi dérangé ma nag ndax xam naa li may wax te ci charia laa koy teg ci sunna laa koy teg dinaa fexe ba du ma vexé kenn waaye bu ak ko yàlla jotee ak lool yàlla nag xoolatuma ku yàlla bind yàlla rek laa ci xool naa sëriñ comme ñëpp bu ñuy wax alaaji Abdul Aziz waaye billaahi bu ak yàlla taxawee xoolatuma ko ci ndax maa ngi moom a ca yem képp lam cay def laa ca def wa illa ñu fudd sama ndigg loolu ña ko ñëpp xam yàlla amul exception ñépp a yem ci yàlla sharia nag may na ma ci iid korité ak tabaski bu ma dëkkoon ndar sax doy leen ngeen indi ma ma jiite sharia nangu la bu doon keneen nit sharia nangu la jumaa moo am werante jumaa moo am tuuti werante te werante yooyu dëgg la wala nga am fa soxna ci ngay mën a jiite jumaa ca gox ba wala nga dëkk ci dëkk ba ñu doy loola boole ci ma damay bañ ñu dem ne sëriñ fa nga jógee Géejawaay ñëw di jiite si ba cité cité acquise Bambilor sharia mayee na ko dem leen ngeen gistu nag ci téere yi dalay ci risaala téere su ndaw si ba ci risaala fu ngeen dem di ngeen ko fa fekk ku leen ko laaj it ne leen ko foofu la nekk rek bu bëggee mu gistu ko te léegi gistuwaay yu yaatu na ku tàppe internet bi loo bëgg a xam li nga ko xam fa tabarakallahu ahsanul xaaliqin gis nga téere bi cheikh seyd alxaaji malik alaaji abdul aziz maanaam bu ci làmmiñam ci fan yu mujj yi mu ne Pape Makhtar Kébé yow laa dëng na ñëw fii ci kër gi di jàngale laxdari dimanche bu jot alaaji rawaan bu dimanche ba dëlsee rawaan mbay bii mu ne ko yow ñëwal di jàngale eh, eh, ni nga koy waxee kifaaya turaax kifaaya kifaaya turaax bi ay weer yu tuuti lañ ci teg mu génn àddina maam borom Touba taalif na téere bii maanaam sharxa na ko tuddee ko tazawudu siraar yóbbalu taalibe waaye mooy yóbbalu ndaw moom la tuddee laxdari ba laxdari la jël taalif ko tuddee ko tazawudu siraar yóbbalu ndaw ndaw dafa am mu lay war a am yóbbal su ko defee kon téere bu am solo la ala Hadj Abdou nee na Seydil Hadj Malick daf daan wax ne. ku bañ tojali gone taq la doo am koo yónni mooy ku bañ sa doom saw ci sa kaw wala mu dem kanale ci sa kaw doo am koo yónni mu ne ku bañ téere xam ndax dale doo am xam-xam ndax xam-xam yépp borom téere bi dajale la ko mag ñi dañ bokk wax ne jikko yiñ ci wax moom laa jukki woon sànq jikko yiñ ci wax boo ko jëfee ñeent fukki fan nekk wali yu kaamil jikko yiñ ŋàññ yépp indi na ko jikko yiñ santaane ku ca nekk yëpp indi na ko soo tere yiñ ŋaañ ñi boo ko bàyyee jëfe ñu wax mu ne nekk wali yu kaamil te loolu rek lañ soxla ci nit wali yu du dem ni naaw asamaan di ñëw picc yee ñu dàq naaw ñun soxlawuñ naaw wali yu mooy koo xam li war digganteem ak boromam mu nekk ci li war digganteem ak jaami yàlla yi mu nekk ci lii rek la ah ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp inspiré muñ leen wa saabiru na ngeen taxoo muñ gis nga dafa ne muñ leen ba pare ne na ngeen taxoo muñ wa raabitu na ngeen takku ba dëgër te fas yéene muñ lu ko muñ gaa yi daal di leen galgal bu ngeen muñul ba dindi seen pas-pas wa taqullaha ngeen ragal yàlla yow li liir bi ragalal sa weenu yaay la'allakum tuflihuna ndax nga mën a tekki ëllëg yow liir bi boo dee sax ci sa weenu yaay dina am ko rek yambar ngay doon doo tekki dara loolu la ñuy feralee liir yàlla daf ñu ciy jàngal ne ñu nit nañ fer ci yenn yi nag mag mu ku dem ba mag nag war naa am yoo dépassé sa bopp bu la ko kenn wax ne dépassé ko dépassé ko sa bopp te bàyyi ko xale yi sëriñ Cheikh Tidiane si daan na wax ne toll ca def ko aayut weesu ko di ko def moo aay fa tabarakallahu bu beneen yoon yi ñu jël jikko yi jikko yi nga xam ne moo tere nit yegg ci yàlla ak jikko yi nga xam ne boo ci amee benn rek yegg ci yàlla yëpp ndax dara indi na ko moom laa jàng sant ci bunt bi buntu bu njëkk bi su ko defee rek comme tasxiru imaani yi la waxoon awwalu maa yajibu alal mukallafi tasxiru imaani yi li gëm li ñi njëkk ci mukallaf mu war ko def ci boppam mooy mu wéral ngëmam ndax yonent bi moo wax ne naatu alayha bi nawajis ne la seen liimaan yi matt leen ko ci seen déggéey su ngeen ko deful gars yi daañu jël seen baaraam yi dugal ko ci seen gémmiñ luqati seen liimaan dem seen yoon te foofu la jamono toll boo yéexee rek ñu jënd sa ngor boo yéex ñu jënd sa ngor sëñ Fallou Mbacke daan na wax ne kuy jaay ngor nag amoo ko ndox ngor ku ko am ko jaay koo dégg ni jaay na ngorom amutoon ngor sëñ Fallou Mbacke moo ko daan na mu ne ndax ngor dafa riin ku ko am du ko jaay Alaaji Abdou Aziz na fii ci pom bi ne man Abdou day ñaar jaaxal nañ ma kiy jaay ngorom ak ki koy jënd xaw ma ku ci gën a bon kiy jaay ngorom ak ki koy jënd mu ne xaw ma ku ci gën a bon kon nag Sénégal la ñun ñoo ko bokk nañ ko defar ñun mën nañ ko defar ci kaw la nañ bàyyi xastante bi nañ bàyyi ŋàññante bi nit ki looy xasee de billaahi yaa ngi fukkal te di ko muutuwaale bëggoo ko xam kon nag la ngay uññee ayibi jàmbur suturaal sa bopp yonent bi ne na ku uññi ayibi nit fii yàlla uññi sa ay ñaar fële ku suturaal nit fii mu ne yàlla suturaal la ñaar fële nañ suturaal nañ dimbalante rek te yàlla tax kenn ku ne loo tanee sa morom dimbale ko ci bu dee xam-xam dimbale ko ci bu dee alal dimbale ko ci lu mën a doon dimbale ko ca du la wàññi dara te yàlla mi la tànn na ba ngay war ngaa sant yàlla ci biir jaamu bi mooy koo ci tane rek dimbale ko ci jëmmam tax fa tabarakallahu ahsanul xaaliqin maa ngi jéggalu su fekkee wax naa fi dara luy niru bàkku wala luy niru yëkkati mbagg wala luy niru eh, yo lu vexé nit maa ngi leen koy jéggalu te ci kanamu yàlla te ngeen xam ne jubluwuma ci woon rek lu wax luy defar ak bëgg ñun ñëpp ñu ànd nekk ci àjjana fii dugg bàmmeel nekk ci àjjana dekki ànd ak suñuy kilifa bay ci kanamu yonent bi yonent bi jiitu kott kott yoll yoll ba àjjana yàlla affecté ñu kenn ku ne ci àjjanaam yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def alaa jab daal nee na dafa am benn néew buñ mës a indi fii ci Colobane ci kër sëñ Cheikh Mbacke Gaye boobu sëñ Fallou nga fa boobu ñoom ñëpp lañ daan dal nee na mu dégg ne sëñ Fallou nga fa mu ñëw di ko seet si mu ne sëñ Fallou nekk di boobu ne ko démb daal am na néew mu ñëw fii mu ne néew bu rafet waay xam nga église moo fa nekk ñëw bu rafet fleur yi daal euh, wër ko lool am ndongo may wax rek maanaam euh, sëñ bi def ci ndànk ndax kii bokkuñu diine masiix yi ma ne ko lu ciy sa yoon xaj na fa xaj na fa xaj naa fa kañ lu sëñ Fallou dafa ne da néew bu war a dem àjjana nii la war a rafet bi day ko def ci ndànk ñii ay masiix yi lañ maye maanaam ay catholique lañ mu ne ko lu ciy sa yoon àjjana ji ma wax xaj na fa xaj nga fa man xaj naa fa man faa lu ciy sa yoon loo ko koy ñaan allah jab daal daan wax ne ku dul tëj du tijji luy sa yoon ci ku ñuy tëje ku ah, mu ne kuy ku dul tëj du tijji yow luy sa yoon ci ku ñuy tëj ak kuñ du tijji yow dañ lay tëj xamoo dañ lay tëj xamoo dañ lay tijji kenn xam nga fan la ci amee Cheikhul Xaaji Malick nee man Malick tey sama tànk ndeyjoor bii bu ne dangay dund àjjana te càmmoñ bi fekk si woo mu ma wóoraguma pexem yàlla afalaa yaamaru makrallahi illa al xawmul xaasiroon foofu laa jeexale sama kàddu nit feek duggoo àjjana wàññi la weesu am na ñoo xam ne ci bunti àjjana la leen yàlla di wàññee yàlla ñu ci yàlla musal te mu ngi ci alxuraan waqifuuhu diggante bàmmeel ak fi nit ki di duggee àjjana 40 bureau moo fa dox bureau bu nekk yonent bi nee na yàlla dina la vérifier mu ne ba di nga gis ku ne yàlla yow yàlla loo ma siggilee nii xanaa sa jaam yi man rek nga ci xam yàlla ne ko dag maa ndax ba ma lay bind kenn fekkuma ci yow ma jox la sama kattan nga sang ko ma jox la sama doole nga foye ko ma jox la sama xel nga foye ko yaakaaroon nga ne bés bii di nga ci tey maa ngi nii yaa ngi nii haza yawmul fasli jama'nakum wal awwalin fa in kaana lakum kaydun fakiidun yàlla rek a mu mu ne yéen ñëpp yéen a ngi ki njëkk a ci ki mujj a dee yàlla dajale na ñëpp benn dingal duñ toogee nii xam nga nu ñuy nu ñuy toog nu ñuy taxaw rond cercle lay doon cercle lay doon nit ñëpp juróom-ñaari sàppe la ñuy doon mais cercle kon ni ñuy tawaafee kaaba gi gis ngeen ni ñuy tawaafee tawaafee kaaba gi ak booy seetaan kaaba gi julli gi xam nga dañuy wër kaaba gi wa hakaza noonu la ñuy taxawee ci kanamu yàlla te toog amul te taxawaay ba ñeent fukki junniy at la ci atu àllaaxira te inna yawman inda rabbika ka alfi sannatin mimma ta'uddun suñ borom nee na su ngeen compter ba am mille ans man yàlla maa ngi door a am vingt-quatre inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun yàlla nee na su ngeen compter yéen nit ak jinne ba am mille man yàlla maa ngi door am 24 heures 24 heures yooyu mooy ko yàlla yooyu mooy compter bés pénc taxawaayu yowmal xiyaam 40 mille ans ñeent fukki junni at amul toog amul kolkolal tànk taxaw rek ne sàtt ni ko nit ñi bu ñu waree juróom-ñaari sàppe jinne yi ñëw wër nit ñi juróom-ñaari sàppe malaaka yi ñëw wër nit ñi ak jinne yi juróom-ñaari sàppe yàlla door a bàkku nag toog ci si seet fatayam ba ne haada bésu tey bii laa leen doon xaaree jamaa naa ko dajale naa leen wal awwalina ñi njëkkoon a dee ba ñu mujj dee yéen ñëpp a ngi nii fa in kaana lakum ñi bari woon pexe ami pexe ami solution kayit duñ ku ci am mel ni pexe tey fakki duuni fexeel ma man yàlla maa ngi. kenn du tontu ñeent fukki junni at mu door a wax ak buur yi nag limanil mulkul yawm limanil mulkul yawm limanil mulkul yawm baat boobu yàlla dina ko baamul ñeent fukki junni at kenn du tontu George Bush ne pat Léopold Sédar Senghor ne pat maître Abdoulaye Wade ne pat roi Hassan II ne pat roi Faysal ne pat Charles de Gaulle ne pat Macky Sall ne pat François Hollande ne pat képp ku mas a nekk mbuur yuux ngay def kenn du wax yàlla door a tontul boppam ne lillahi lwaahidil qahar tey pouvoir ñeel na ki am doole puissance not ñëpp te kenn not mooy man yàlla doola wax nag ne balance yi na wàcc malaaka yi di wàccee balance yi kenn ko ni ñu tegal na sa balance commencé di peese jëf yiw ci ndeyjoor yiwa di ci càmmoñ tiyaaba ci ndeyjoor bàkkaar ci càmmoñ yonent bi nee na léeg-léeg nga gis ko euh, euh, euh, bàkkaaram waroon na daan yàlla xool man de dugg leen ko ko rek mu jóg yàlla ñu yàlla boole ci mu ne am na ñoo xam ne sax malaaka yi duñ gis seen balance yàlla daf koy ful mu ne ñoo ñooy samay ahbaab man yàlla waaye dañ koy liggéey de mu ne ñoo ñooy samay soppe man yàlla yuhibbunahu yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin alal muminina aizzatin alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wala yaxaafuuna lawmata laa'im yàlla nee na yuhibbuhum maa leen bëgg ñooñu yàlla nañ ca bokk wa yuhibbunahu ñoom it ñu bëgg azillatin ndax gàcce alal muminina dafa nekk ci jullit aizzatin ndax tedd nga alal kaafiriina dafa nekk ci yéefari yu jaahiduuna yéen jullit yi yéen a ngi xeex fii sabilillah ci yoonu yàlla wala na te ragalu leen lawmata laaimin ku leen di ŋàññi lii sax am na ku leen di ŋàññi xamul dañoo soof rek naan dañuy julli ji ii luy ii am na koo xam ne fii la leen di romb dem jullee ji feneen waaye buñ leen sax jàpp leen fi ngeen jàpp rek nekk leen benn loo gis ci benn lay tàmbali bu ngeen jàppee te woo bàyyi dina mel ni ngeen bëgg fii yal na ko yàlla def jàpp yal na ko yàlla jumaa ngeen fiy def seen lépp lu ngeen soxla ci diine yàlla def fi école def fi lépp seen site bii yal fi yàlla sëmbartal jàmm sëmbartal ko ci réew mi ak mbooleen réew yu jullit yi fu ay di takk ci àddina bi yal na fa yàlla sotti ndoxum jàmm di sant ñëpp di gërëm ñëpp waaye jiital ci alxaaji Madické Dramé fa tabaarakallaahu ak faamara ba ñoom ñaar ñoo ko dox ba lii am daaw lañ ko doon dox yàlla dogal ko ren ñu dox ko yàlla dogal ko tàmbali na ren insha allahu dootul dakk fekk ñu ngi dund te yàlla ko yàlla wéyal gannaaw buñ fi jógee ndax éternel moom dund éternel yàlla rek ko am kenn amul ku kullu nafsin zaa'iqatul mawt ñun ñu fi toog ñépp gone yi yal nañu toog ba nekk ay mag yàlla def leen ëllëg ñi responsable yi ci yi ci réew mi yàlla bu leen ci kenn ëppal ñun ñii jur leen ah kenn ki nekk li nga bëgg yàlla ko yàlla teg ci sa loxo yaa ko xam kenn ku ne li nga bëgg yàlla ko yàlla teg ci sa kenn ku ne la nga ragal yàlla boo ko gis ci daraje yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci barke bis bi di sant ñëpp di gërëm ñi ma àndal alxaaji Saaxo bii toog nga xam ne Thierno Bachir Mountaga Cheikh Oumar saa yu ma ko nuyoo mu ne ma ana alaaji saaxo nitu yàlla suufu yanke saa yu ko waxee rek mooy kii ñoo ànd ñëw ak Saïd Guèye bii nga xam ne doomu alaaji Moussa Guèye la ci ñoor ak fa tabaarakallahu Pape Mamadou Jonn ñii laa àndal mënoon na ko waaye ñun dañ préféré rek lu ñuy def ñu def ko rek te yàlla tax def ko it ci sutura rek waaye insha allahu taala yoon bu jeexul waaxu seen bu jeex loo gis ci benn lay tàmbale ne nañ benn de mille dix neuf ah yal nañ dem ba cent ans yal na ko yàlla def te bu kenn xeeb kenn nañ ormalante ñun ñëpp bëggante soppante teral alhamdulilahi rabbil alamin di sant nga xam ne moo fi jiitu si di Chérif Dabakh TV yàlla sarax ñu ko muy ab télévision tabarakallahu ñu koy sant di ko gërëm toog leen ñu ñaan bu ñaanee nag su ma xesee rendi sama xar ku dem mën ngaa rendi sa xar fa tabarakallahu loolu mooy sunna ku ma njëkk bi am nga yàqu waaye amoo tabaski fa tabaarakallaahu moo tax ma indaale ko bañ rek eh, yooyu la gaal su ko defee kon ñu ñaan te tabaarakallaahu loolu lañ gën a sox moom lañ bëgg fa tabaarakallaahu bu beneen yoone xam na loo nekkul taalibeem loo nekk professeur am loolu rek la ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp rawati jigéen ñi yal leen yàlla may barke njaboot yal leen yàlla defal barke njoboot allahumma salli ala sayyidina muhammadin annabi al-ummi al-qurayshi al-makki al-madani al-arabi al-abtahi al-hashimi الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء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 rabbana atina fi dunya xasanatan wa fi laaxirati xasanatan wa qina adaba annaar rabbana la tuzig qulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka anta alwahhab inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman salla allahu taala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salaamun ala al-mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin. kullu nafsin zaa'iqatul mawt wa innamaa tuwaffawna ujurakum yawmal qiyaamati faman zuhziha 'anin naari wa udkhila al-jannata faqad faaz وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرقوا أذى كثيراً ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون